الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وما محمد إلا رسول وجب حمدي ربي العزيز على اتباع المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم musalliyan alayhi kulla dahri wa alihi wa sahbihi fil jaari alhamdulillahi ala kawni rasul muhammadin wasilati إلى الجليل محمد صلى عليه الجلال وآله وصحبه خير رجال عاش مقاما لم يكن لخيره bal faas kull faa'iq bi xayri maqaamu fawqa al maqaamaati al hulaa sallaa alayhi man hadaahu waxtalaa مع وطوط الكفر والأوزان والسرك والنفاق والحسيان دام اتباعه ودام عقوق فدام خيره ودام سبحه أرسلوا رب الورى للخلق مبصرا ومنصرا بالحق لا تلد النساء هالا ومآل مثل النبي المنتقى في الدلال لست أزال أعبد الله الجليل إلى مماتي بسنة الرسول أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل الوراث الفضلين ربي عليه سل أفضل الصلوات بها أفارق الحيوب الموبخات سخني إلى الإيمان والإسلام ثم إلى لساني سي إتمامي waji ilayya ma yufawiqu sawaab waltakfini bijaahihi kulla itaab lahu wa lil aali wa lissahaaba jub bi salaatin tuurisul ijaaba lahu wa lil aali wa lissahaaba جد بصلاة تورث الإجابة du yow daana daane yaa am diine du yow daana yaa am diine yaa fu sax bi jënum yi rëy ñetta daanoo ku du yow daana daane yaa am diine yaa fi nu turu ya weddi yàlla te xeexoo ku du yow daana tuure damma ka ceene yaa fi matu xutb mat fi xaw di alim di xadimi rasuli fardi amini yaa di maayin defar nga tooñ yanu tooñoon yaa di taaxa te yaay yaasiini yaay habibul ilaahi yaa dib xaritam yaay siraatal ilaahi yaa xam yooni di misbaawun yaa di lamp bu dul fay yow saleer gaa ngi dox bawal jëm siini nabiyin ku ni ndax war nga alburaaxil amiini adimaayin nu ni ndax war nga alburaaxil amiini yaay doonay Mustapha xayru samaanin yaa fi yor mboote Ahmadul Balxiini sakki ngay xutbu sakki xawsu samaanin baarakallaahu doomi bamba amiini sakki ngay xurbu sakki xawsu samaanin baarakallaahu doomi bamba amiini yaa nooyal tafas dawul jaasi xeexul lugutakul baltawoo xeej naa yaa fi faj aajo waajo ak si nga seexal yaa nu wammat jox yàlla ci tegiini ñii nga jox werd ñii nga yéegi ci baatin yoonu ñukk ak ñaq ak binday saw yooni yaa nu wan sunna yor nu yar yaa nu rey la ba far nanu miine caatum ak sa sin la ca yo booloo yor bëlëgu doom jëm daaru ngir fari diine ba ñu yegsee xam nañu yow doo fayantoo su seen ruya dem si jiini malaakay ba deri lim fa toogoon lañu siiw am sëy ndigal ci nooni yow nga far jàppuru ya gaaya ca baaxoon def ci lislaam yaa xooti mbir doo cuune bañ de loolo doomi buri tasaaro ña ca doon garmi ñépp naa tub leeni jaatum al sësin lëmbar ya ne janjang ca jaram loo mbaaxaani ak buur siini yile kàggam daw fekki Cerno Birahim yile kàggam di ñëw fi yow di la fooni gel war yaag ampa nga boole fa Jurbel waaye la xar baax saxal na kun fa yakuni ku fi daawe di diine ne ko fa waylun mbaamu dem yor fi suuratil maoni ku caatum jëm si sin la burab taraasa seet si jurbel gaayam yanaa la amiini gurwaaloo ngi wal di sa jëfa Tuuba yàlla daanonu tey ñi ngi aw yooni say taggay war di sunu liggéey ak i ngonnal yow la nuy ba dun waxi nee ni war di waaje yow la nuy taaroo sopp gën ci ab murit ay leeni bamba yow say karaama kenn mënu koo xam nde ndoxum géej ñëroowul ak moom teeni noo ngi lay ñaan yow bamba waajul la toppoon yàlla na yoo loo fi suurati watiini noo ngi lay ñaan yow bamba bis bu nu faatoo ku xamoon Seyxu Bamba defu ceene te malaaka yi ya buñ nu fa way weexi marke fil jëpp miini yow ma tabyaddu dafa lasina wujuhun bu keroogee murid yi am lañu yéene yow ma na doo yërëm nu kuloo naasin fanu tàbbal fi jannatil xuldiini bu nu dekkee ba jëm siraat nanga nu wammat ndax nu farraw melax guy gaf ci xiini bu keroogee teral nu teeru nu ci ñam te nangul nuy jigéeni wurliini nga la muusa faral taxaw lu tebul wey te nga faru julli waxtu waa ngay ngooni mbaa nga wax sali rabbi xayra salaatin bi salaamin ala nabil amini maal ali wa saabi wa qadimi ak doomam yi nuy filini Sëriñ Tuubaa sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba di maanaam dëkku dem duy soobu ni mes bu génnee xam boromam tey wéyta aw wa feesal ci leeram ba fag di duyal moromam ku sobug dex na xam ndox dof bi yeewul te watum ndox lewet na te weex ca biiram ku sàggan sànku faw te lëptu doo duy te doo set doo setal doo xam bambaay ngi waaju xamul nga dégloo jikkoom yaa moo xam boroomam di jox aji di dimbale ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam di mbay ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boroomam di faj aajo xam luy mboot di seexal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 tofal mborom boroma mele ka yaag mele biiram dëppoo nañ du digle lu bon du diglu ku dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy du bëgg du bañ du faale ku dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonent te mas la tawat loo xew ci ku du mooy ngir ti du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale ku dul boromam mele bamba waaju xamul ne dégloo te rëy rëy lu jikoom yaa moo xam boromam barkeb sëñ Tuuba jërëjëf noo ngi jéglu bu baax naa njàng mi moom taxul ma ma jàpp ko daal waaye noo ngi siyaaru suñu kilifa yu baax yi suñu ginnaaw di leen ñaanal yàlla bu baax di siyaaru sëriñ gànn wér ak gudd fan yàlla sàmm ko te aar ko yéenam ci sëñ Tuubaa yàlla na ko yeggale noo ngi nuyu mboolem kilifa yi fi nekk yépp di nuyu sëñ Mohamed Samb nga xam ne moom moo bokk bàyyi di ko ñaanal yàlla bu baax di beral nuyu sëñ Bachirou Mbacké moom sëñ Cheikh Thioro moom Cheikh Mouhamadou Lamine